gis na ni ngeen traiter traité Matar Jamra Matar Gueye mi ni ngeen koy traiter booy Matar Gueye ni ngeen koy traiter ak Adama Fall doomu xaj joju gis na ni ngeen koy traiter sama na. gars yi gis legi Matar Gueye Matar moy boy bobu nek jam Jamra boy Matar Gueye mom. nga xamna ndaysan da daa luppe luppe la def mom pièce bi da ci tanu tabbi ci bir parce que tay ñu ñepp ngi doga xamna Matar Gueye jàngul barke cheikhul khadim ñepp ngi doga xamna Matar ndax waxi politiciens yi jala mataar gay daw dugg ko yow nekkee koo mas a joteel yaa ko tooñ ba tax na yow nga toog ni da ngay joxe leçon di di di di yeddaate di waaraate ku toll nepp oustaz taxaw wax la dëgg nga ne ko sos kan nga ak oustaz de sos nga jël baatu oustaz teg ci sos te nga ne yow diine ngay xeexal <laughs> oustaz Modou Fall nekk yow nit ku baax nga de ñu ngi lay sant di la gërëm dëgg rek nga wax barke alxuraanu karim Iran Ndao ñi ngi lay sant ñu la gërëm ñi ngi sant sax ma ràngu soxna ràngu ndekete yoo dañ ko daan sosal rek ndeket lu ràngu ku baax la di di di sant kii femme bi ci des damay fàttali tur wi sama xel dina ci ñëw mbooleem koo xam ne daal mas ngaa jotanteeg Jamra ñi ngi lay baalu ak bu fekkee yëkkati nañ suñ kàddu teg ko ci sa kaw ñi ngi lay baalu ak xam na na yaa nekkoon ci dëgg man gëm naa ni Jamra lépp li ñuy xeex yàlla taxut man maa ngi koy doog a xam maa ngi doog a xam ne ay politiciens fa nekk maa ngi koy doog a xam benn bi ci topp mooy Matar Gueye mënoo ne da ngay wax dëgg nit ñi te kenn du la wax dëgg Modou Fall li mu la wax ba ngay toog di tontonte yow da ngaa tontante moo la saf ab tontante moo la saf kuy liggéeyee yàlla du tontante da ngay dëngal rek di wéy bu fekkee yàlla ngay liggéeyal mais nag xam na ne ñun trésor tëj jëm tëj day def effet ñun xam na ne day def effet waaye nag ñun anticorps yaa ngi fii Sonko day continuer di liggéey Diomaye continuer di liggéey ñun anticorps yi ñu ngi fi. wax di wax patriote yi démb ak tey na kontaan naa gis naa ni ngeen di traité Matar Jamra Matar Gueye mii ni ngeen koy traité booy Matar Gueye ni ngeen koy traité ak aadama Fall doomu xaj jooju gis naa ni ngeen koy traité sama xol sedd na.